hello guys i'm really happy to have you back on my channel so today is gonna be our lesson our lesson number eight and we are gonna talk about the accent accent questions so uh, tey la suñu leçon numéro 8 et on va parler euh, lépp loo xamante ne si moom moo aju ci wàllu poser question donc yan terme ngay utiliser pour pour mën a poser question donc asking questions ok donc dañuy commencer par joxe leen ay euh, exemple ci to do to do moom mooy def moom mooy def ci wolof moom mooy def to do maintenant boo ko doon conjuguer da nga naan I do I do you do you do moom mooy yow he does donc fii day changer do bi day changer day changer comme to have to have boo ñëwee ba ci he bi day doon has au lieu de have da nga naan I have you have he he bu doon to be la danga nga naan I I am you donc to do donc danga nga naan I do you do bu dee jigéen la nga ne she does bu dee bon lépp loo xamante ne si du nit maanaam objet wala wala bàyyi ma nga ne it does donc we do they do donc deuxième yu bi dañ ko dañ ko éliminer parce que ñoom ñaar ñoo yem mook yu euh, bu njëkk bi ñoom ñooy yem donc yu du ngay wax foofu donc ay du yu du hidaz shidaz idaz wi du zaydu ok léegi boo bëggoon wax defal li ma la sant maanaam defal li ma la sant da nga naan do what I tell yu to do do what I tell you donc mooy defal li ma la sant defal liggéey bi moom mooy do the work do the donc defal liggéey bi moom mooy do the work dama ko war a def moom mooy I have to do it I have to do it moom mooy dama ko war a def léegi boo doon poser question au lieu de donc boo doon poser question da nga da koy dëpp xam nga fële dañu waxoon I do you do he does she does it does donc booy poser question boo bëggoon wax maanaam ndax boo ko bëggee def ndax di nga làkk anglais maanaam boo bëggoon wax ndax di nga làkk anglais da naan do you speak English donc moom ngay waxal donc you do lañ doon waxoon fële ci koy conjugué booy wax ak moom direct maintenant boo koy poser question da naan do you donc da nga koy dëpp do you speak English moom mooy ndax di nga làkk anglais. maanaam ndax dafay làkk anglais boo ko bëggoon laaj da nga naan does he speak English bu fekkee eh, góor góor nga xooy ngay moo tax nga xooy laaj nga am koo koy laaj ni ko ku góor kii est-ce que moom dina wax anglais danga naan does he speak English wala nga ni does Adama speak English wala does Mamadou speak English donc bu doon jigéen la danga naan does she speak English does she speak English léegi ndax di nga lekk ceebu jën boo ko bëggoon laaj ndax di nga lekk ceebu jën danga naan do you eat rice and fish eat moom mooy verbe verbe manger moom mooy lekk do you moom mooy ndax donc do you eat rice and fish moom mooy ceeb rice mooy ceeb fish moom mooy jën donc n moom mooy ak donc rice and fish mooy ceeb ak jën donc rice and fish ceebu jën do you eat rice and fish mooy ndax di nga lekk ceebu jën maintenant do you eat ceebu jën bu la neexee tamit nga ko wax parce que en anglais euh, t'as besoin ngay ngay changer aussi ci loo xamante ne si da nga koy wax naturellement ci wolof jarul nga koy changer bu doon damay seetaan Pod et Marichou mën nga ni I am watching Pod et Marichou maanaam wala nga ni I am watching television même bu la neexee tamit waaw donc da ngay utiliser les mêmes la neexee loolu change change rien hmm? ngay wax nit. ah bañ ko wax ci anglais comme ça Mamadou nga ni Mamadou bañ a wax Mamadou comme ni koy gars yi di defee donc do you eat ceebu jën bu la neexee nga wax ko wala nga ni do you eat ndax dinañ lekk ceebu jën ndax ñoom dinañ lekk ceebu jën da nga naan do they eat rice and fish do they eat rice wala nga ni do they ceebu jën do they eat ceebu jën donc heure boo ko dëppee rek day nekk ndax bu doon da naan xii daas daaj xii ngay wax bu doon euh, bu doon góor la daas xii ah bu fekkoon na nga wax ndax ku góor ki dina lekk ceebu jën da nga naan daas xii eat rice and fish ah, bu dee jigéen la nga ni daas she eat rice and donc toujours danga koy dëpp mu jox la mu jox la ndax nekk nekk moom mooy to nekk moom mooy to waxoon nañ ko ci leçon yi passé da nga naan I am you are he is day changer she is it is we are donc fii boo bëggoon wax euh, yow Sénégalais nga yow Sénégalais nga da nga naan you are a sénégalais donc leçon bi expliqué woon nañ ko euh, ci leçon yi passé donc you are a sénégalais moom mooy yow sénégalais nga maintenant boo ko dëppee day indi maanaam bu bëggoon wax ndax yow sénégalais nga ndax yow sénégalais nga ndax sénégalais nga da nga naan are you a sénégalais are you a sénégalais ndax yow sénégalais nga. donc mook duyu bëree bëri ñoo bokk duyu bëri nañ ko faral moom la ñu ëpp lu ñu lu ñuy faral di gis ci booy poser question hmm, do you speak do you talk do you go donc ko mais am na yoo xamante ne si tamit boo ko versé boo ko inversé boo ko boo ko dëppee da lay jox euh, même sens duyu bi donc yu aara sénégalais yow sénégalais nga ndax sénégalais nga moom mooy aar yu e, sénégalais bu fekkoon boobu da ngay laajte ndax ku jigéen ki sénégalais la da nga naan ich ci sénégalais bu doon da ngay laajte ku góor ki da nga naan is he a sénégalaise ndax sénégalaise la waaw suñu exemple baa ngi ndax sénégalaise nga sénégalaise la da nga naan is she a sénégalaise bu fekkee da nga bëgg a wax moom sénégalais la ku jigéen ki da nga naan donc bu fekkee euh, da nga bëgg a wax ndax moom sénégalais da nga naan she is a sénégalaise bu bëree da ngay bëgg a laajte da naan is she donc danga koy dëpp is she a sénégalaise moo nekk nii is she a sénégalaise léegi ndax ñoom sénégalais lañ da nga naan aar they sénégalais are are they sénégalais are they sénégalais léegi am na yeneen façon tamit yoo xamante ne si yeneen termes yoo xam mën nga ko utiliser ah, pour poser question donc moom lañuy ñëw jox leen ko lépp en en détail ba nga mën mën mën nga comprendre bu baax donc lan ci anglais moom mooy what kañ moom mooy when fan moom mooy weer nan moom mooy xaw kan moom mooy xu walla xum ban si moom mooy which lu tax moom mooy waay bu kan moom mooy whose donc dañuy ñëwaat lan moom mooy wat kañ moom mooy wen fan mooy weer nan mooy xaw kan mooy xu walla xum Banshee moom mooy witch lu tax mooy waay Bukan moom mooy who's donc benn bu ci nekk dinañ ñëw euh, jox leen kay exemple jox leen ci exemple ci ay phrase donc ñaar wala ñetti phrase yoo xamante ni si danañ di permettre ngeen ko ngeen gën ko comprendre léegi ba bëggoon laaj lan la war a def lan laa war a def maanaam ba bëggoon wax lan laa war a def danga nga naan what I have to do donc I have to do waxoon nañ léegi moom mooy il faut que ma def ko. maanaam boo indee what bi ci kanam what I have to do moom mooy indication bi mooy lan laa war a def donc what I have moom mooy lan laa war a def lan nga bëgg boo ko doon laaj nit lan nga bëgg da nga naan ko what do you want what do you want donc want bi moom mooy verbe moom mooy bëgg donc what do you want waxoon nañu euh, do you boo ko waxee. day euh, indi ndax mais do you day jël beneen sens donc what moom mooy lan donc do you bi day ñëw compléter suñu suñu question bi suñu question wat bi donc what do you want mooy lan nga bëgg te bëggoon wax euh, boo bëggoon laaj ndax danga bëgg kese da nga naan do you want something ndax danga bëgg dara da naan do you want something maintenant boo bëggee wax what boo bëggee wax what do you want lan nga bëgg su boobaa dee doon what do you want donc lii boo ko éliminer nga ni do you want something ndax bëgg nga dara hmm? boo ko ci yokkee boo ne what do you want moom mooy moom mooy lan nga bëgg lu xew lu xew moom mooy what is going on what is going on moom mooy lu xew what is going on léegi kañ ngay dem kañ ngay dem moom mooy when will you go wax nañ ni léegi when moom mooy kañ donc when will you go moom mooy kañ ngay dem donc kañ nga koy def moom mooy when will you do it when will you do it donc when moom mooy kañ kañ la mën a nekk kañ la mën a nekk mooy when will it be possible when will it be possible moom mooy kañ la mën a nekk donc fan where nañu jël exemple ak weer fan nga jëm moom mooy where do you go where do you go moom mooy fan nga jëm foo nekk moom mooy where are you where are you moom mooy fan nga nekk foo dëkk moom mooy where do you live where do you live nan la mel how is it like donc xaw bi moom mooy suñu moom mooy moom mooy moom mooy nan is it like is it like moom mooy lu muy nurool donc like moom mooy resemblance moom mooy nuroo luy nuroo rek lu ci ëpp like ngay wax like like he is like uh, he is like a dog wala he is like uh, he is a crazy moom xaj lay nuru wala moom dof lay dof lay nuru donc he is like a crazy donc da nga moom mooy xaj dof lay dof lay nuru donc is it like moom mooy it is like is bi dañ koy dëpp toujours question ba poser question nee naa la verbe bi nga conjugué ak euh, personal pronoun bi da nga leen di inversé moom mooy is it bi bëggoon wax moom daf lay nuróol da nga naan da nga naan it is like euh, donc moom xaj lay nuróol da naan it is like a dog it is like donc boo fekkee da koy dëpp danga naan is booy poser question how is it is like donc toujours da ngay inversé boo bëggee poser question. how is it mooy nan nan la mel donc nan laa mën a def pour dimbali la nan laa mën a def pour dimbali la mooy how can I do to help you how can I do to help you mooy nan laa mën a def ba pour dimbali la how can I do to, to help you how can nan nan laa ko koy expliquer nan laa ko koy expliquer moom mooy how am I going to explain that to him how am I going to explain that to him donc how am I going to explain that to him gisoo fii I am bi ñu waxoon ci personal pronoun ci to be bi moom lañ dëpp donc am bi mooy njëkk a ñëw ay bi donc how am I au de how I am donc da nga naan how am I am going to lii rek tout court boo defoon I am going to explain that to him moom mooy dinaa ko ko expliquer mais nag bu bëggee wax nan laa ko koy expliquer da nga naan how am I going to explain that to him kan ngay waxal kan ngay waxal mooy who are you talking to who are you talking to wala whom are you talking to donc wax naa who walla whom sa ñoom ñaar ñoo yem moom mooy kan donc who are you talking to mooy kan ngay waxal kan moo ma doon seet kan moo ma doon seet da nga naan who was looking for me who was looking for me waaw kan moo ma doon seet da nga naan who was looking for me kan ngay xalaat moom mooy who are you thinking about who are you thinking moom mooy kan ngay waxal ah, kan ngay xalaat donc kan ngay xalaat moom mooy who are you thinking ban ordinateur nga jënd ban ordinateur nga jënd moom mooy which laptop did you buy kañ lay ñëw mooy bu fekkee da ngay comparer da ay mbir maanaam nga dem ci benn place buy jaay ordinateur foo xamante ne si day jaay Samsung ah, day jaay Nokia day jaay yeneen mark ah, yow boo buggee laaj ban ci ci ordinateur yooyu nga jënd da nga naan which laptop did you buy donc which laptop did you buy ban candidat ngay votel donc ban candidat ngay votel tamit mën nga utiliser which moom mooy which candidate are you voting are you voting for donc which candidate are you voting for nekk nii which candidate mooy ban candidat eh, ngay votel kan ci yéen moo am xaalis boo ko bëggoon laaj kan ci yéen moo am xaalis danga naan which one of you have money léegi boo bëggoon laaj lu tax nga dëgër bopp lu tax nga dëgër bopp danga nga naan why are you stubborn why are you stubborn moom mooy lu tax nga dëgër bopp stubborn moom mooy ku dëgër bopp maanaam why why aar yu maanaam ba bëggoon wax nit ki dafa dëgër bopp da naan you are stubborn you are léegi lu tax nga dëgër bopp da ngay indi why bi da ngay yokk why bi da nga naan why are you donc you are bi danga koy dëpp nga ni waaye aar yu wax nañ fi léegi ni question booy posé da ngay dëpp personal pronoun bi ak verbe bi nga conjugué donc are you why are you lu tax waxoo ma ko woon maanaam lu tax waxoo ma ko woon boo ko bëggoon da nga naan why didn't you tell me that why didn't you tell me that hmm? waxoo ma ko woon tout moom mooy you didn't tell me that mooy waxoo ma ko léegi lu tax waxoo ma ko woon da nga naan why didn't you tell me that why didn't you tell me that lu tax woowoo ma da nga naan why didn't you call me you didn't call me mooy woowoo ma maintenant lu tax woowu woon moom mooy why didn't you call me why didn't you call me léegi nañ ñëw ci question ak whose ku moom téléphone bi moom mooy whose phone is this whose phone is this waxoon nañ ni léegi which bu fekkee ah, loo xamante ne si ay kii yu bëri la maanaam ay ordinateur ah mën na nekk sax ay nit mais fii da ngay laajte ku moom ah ku moom mbir mi ku moom ordinateur bi wala ku moom téléphone bi wala affaire yooyu tey say bu bëggoon wax ku moom téléphone bi da naan whose whose moom mooy kan moom moom portable bi whose phone is ci yéen moom bi ku moom yëre bii da nga naan whose shirt is this whose shirt is this whose shirt ku moom montre bi da nga naan whose watch is this whose watch is this ok guys that was all for today's lesson thank you very much for watching it so ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné au maximum ci chaîne bi maximum de partage Ah, parce que loolu mooy tax seen bi am euh, am ampleur aussi te loolu mooy tax aussi mais gën di motiver wu di dugal ay leçons donc euh, c'est quelque chose boo xamante ni si euh, man suis passé par la te bëgg naa ko partager ak yéen donc c'était tout pour la leçon d'aujourd'hui merci ciao